ñu leen di rafetlu liggéey macha allah euh, man li ma am li may wax ci film bi mooy Umu Kalsum Umu Kalsum warul mere warul mere wujj bi daal warul mere wujj bi parce que su fekkoon ni wujj bi dafa soos wala moom amul ci li mu wax noonu amul ci lu ko leer ci deewu Ayda bi nga mën a wax nga ni war na ko mën a mere mais comme moom dem na ba xaritu Ayda bi ñëw na wax na li xew lépp. kon foofu waru ko fi mere daal beneen bi ci des mooy euh, deew caan bi nu mu tudd sax caan sax euh, moom ni mu dee dafa yomb comme moom da doon woote ni dafa bandi capable na def lu nekk kon moom normalement ki koy rey waroon na xeex ak moom wala mu def benn effort daal ni mu dee daal pour man dafa yomb loolu laa ci li ñuy wax ñu ngi leen wa rahmatullah waa Lu Xew TV ñu ngi leen di nuyu. di def suñu commentaire ci seri bi muy brigade des mœurs di wax ne série bi am solo la ñu ngi félicité bu baax a baax euh, ki nga xam ne mooy def scénario bi ak ki nga xam ne mooy def euh, mise en scène bi am na solo trop ñu ngi leen di jaajëfal nit ñaa ngi koy siifur bu baax a baax mais ma remarque ci ñaari mbir rek bi ci jëkk mooy man jàpp naa ne même à dehors du bi. aana am na empêchement bu koy tere jouer film bi normal loolu moo tax ñu koy kamu fule pour xool nan la ñuy def ba aana empêchement yooyu mu nekk à dos de film bi ba bu mu ñëwaatee ba mu ñëwaat pour bu ko defee ñoom ñu mën a continuer rôle am loolu moo tax jàpp naa ne moo tax euh, ñu bëgg indi euh, ki nga xam ne moom moo def formation militaire bi pour mu remplacer aana mais jàpp naa ne moom ni ko niñ ko bëgg a profité wooye noonu pour indi ko noonu dafa xaw a yomb trop quoi comme le fait que aana moom mu ngi foofu nin ñaa ngi waxtaan ak moom mu ngi dégg comme ni mu def ak euh, euh, nu mu tuddati euh, muy policier boobu waxtaan na ak moom waxtaan bu jaar yoon kon jàpp naa ne monsieur le maire moom la war a jëkk a waxtaanal ci loolu ba pare avant mu ciy waxtaan ak xale yi kon jàpp naa ne même bu fekkee ana à de firme bi dafa am empêchement moo xam lu ko jot mais yàlla na doon jàmm euh, ci sama xalaat nag laay wax bu fekkee en dehors de firme bi dafa am lu ko empêché ba tax ñu bëgg koo defee noonu monsieur le maire kàddoom dafa war a delluwaat ci aana waxtaan ak aana ci kan la xalaat ne moom mën na jiite xale yi parce que aana wax na ak wax bu jaar yoon ak ex inspecteur bi wax na ak wax bu jaar yoon ak euh, beneen femme bi nga xam ne moom mooy solvère yi kon jàpp naa ne kon foofu noonu euh, niñ ko bëgg a profité euh, pour man euh, des naa tegu ci yoon quoi ñu xool niñ koy organiser waate beneen bi aussi tamit bon même bu fekkee ni aana en dehors de film bi dara empêché wu ko mais loolu dafa bokk ci film bi jàpp naa ne militaire bi warul jiite parce que nekkul ne moom moo def formation militaire rek moom moo war a jiite même bi muy nekk militaire am na ñu ko jiite woon mooy ñi ko ëpp diplôme jàpp naa ne ki nga xam ne moom moo ëpp diplôme ci ñoom ëpp xam-xam ëpp expérience kooku moom moo war a jiite man jàpp naa ne ki nga xam ne moom mooy sol vert te saa bu ñu jaaxlee kooku moom moo leen di coordonné moom moo leen di jox ay ay ay information yu leer jàpp naa ne kooku moom moo war a jiite bu fekkee jiite war naa am ci ginnaaw aana maa ngi jégalu bu baax a baax bu fekkee commentaire bi dina mën a jàll salaamaaleykum wa rahmatullah waaw asalaamaaleykum waa Lu Xew TV ñu ngi leen di ziar di leen jégalu waa di rafetlu bu baax a baax waaw man damay seeraan série mars mais depuis bi fi ñu yam maa ngi koy suivre benn raw ma normal dama koy seetaan bande annonce bu mu dugal koy seetaan yëpp daal mais série bi dafa nekk série bu am sens quoi ci ku koy seetaan te bëgg ci xam dara daal ndax boo xoolee li ni li ni jiyee lépp dafa am Sénégal dafa am ñoo xam ne góor ñoo xam ne métital jigéen rek moo leen ñor ñoom métital jigéen rek ñoo leen ñor teguñu leen seen place tout le temps nañ leen métital am ñoo xam ne ñu ngi jàpp nit ñi yóbbu di leen denc seeni waajur walla seeni mbokk ñépp di wër kenn ku ne di wër yoo xam fan la yóbbu ak ñi nga xam ne seen parents yi ñi nga xam ne dañ leen teg yenn coono jël sa doom di ko teg benn coono bi sa biir kër te du sañ a wax du sañ wax gi mooy ak kii sama papa la sama ko tegee ci yoon daan ko jàpp si yooyu noonu mooy ci Sénégal moo tax gis nga film bi képp ku si ku seeraan rek boo paree am na loo xam ne war na laa jàngal boo paree rek am na loo xam ne war nga cee jàngee ana tamit man moom wax fa dëgg yàlla dama ko ci posi série bi quoi dafa nit nekk nit ku jàmbaare ku xam ak ndax boo xoolee ñu ngi défendre ñëpp kenn ku ne fi mu la fekk temps yi mu fekk génne la ci metti na boo xoolee gis nga kii ah damay fàtte tur mais ki ki jëkkër ji doon jàppoon di ko ba mujj ray jëkkër ji mais boo xoolee loolu da ngay xam ne moom loolu doon moo doon solution mu dóor ko bal ndax bu bu kon noonu nekk moom dina ko ray te moom doomam moom moo taxoon mu toog foofu pour sëy beneen bi mooy ki nga xam ne dafa te li mu gën a ci loolu noonu ci la bokk mooy que yéen xale yi jigéen ñi yéen ñi nga xam ne yéen ak yéen mooy que bul nangu mukk sa far naan la wala sa jëkkër naan la fotowul su meekul fotow nga envoyé ko loolu ku la ko wax bëggu bu dee sa jëkkër bëggu la bu dee safara faram ndax tey téléphone am xamoo moom doo koy yor xamoo yow sa téléphone moom doo koy yor ndax boo xoolee moom photo yooyu noonu xaritam moo ko partage xool lim ko yàqal avenir u ëllëgam ay doomam ku dugg ci kii bi dina ko gis dèjà loolu nañ ci bàyyi xel man loolu moom dama marqué trop trop képp kuy jigéen ku ne la fotowul envoyé ma ko na ko bëggoo te bis naka tey jàppal na bëggula man maa wax série bi nag dama nekk série boo xam ne man dama intéressé quoi ndax ma dama ci jàngat soo si paree rek am na lu mooy la ma ci woon ci côté Jeanne ak Jules César at boo reyul Jeanne ndax fekk ko fi moom ak moo at boo moo ko kii ñoo àndoon moo rakku Jean bi ak xaritu bi ñoo àndoon dem déjà affaire bi ci ginnaaw la ndax at boo doon déglu xaw ma journal dégg ñu ne brigade bi ñu fi nekkoon dañoo rëcc yooyu noonu la ci am kon du mu xam nga ne. asalaamaaleykum maa ngi leen di leen ziar damay ñëw ci li li comme li monsieur le maire wax rek ci def formation militaire bi muy imaam moo ko war a jiite parce que moom mm, yande comme yande moom mooy loolu wax na ko nee na moom gis nga nekkul nit juste daal maanaam bu tayee mu def li bu tayee mu def lee kon iman moo ko war a gérer à part moo ko war a gérer beneen bi mooy Jules César moom dañ ko war a rey moom waru sax dund dañ ko war a éliminer teg ko ne parce que jàpp ci nit ñi di rey rek moom xam nga mm, lii de doxul de c'est pas abordable Jules César moom dañ ko war a rey asalaamaaleykum Dalu Xew TV maa ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax baax leen jox seen wàccuwaay bàyyi nañ ci jàmm di kontaan ci yéen bu baax ci liggéey bu rafet bu am solo bi ngeen di def waaw dama bëggoon a euh, commentaire ci bu neex la moom ñu ngi suyee di dund waaw moom lañ ci suyee neex na torop waaw. dama doon laajte saar moom est-ce que dafa dee wala deewut si saar moo ko rey wala daal nu demee noonu laa doon laajte wax dëgg yàlla série neex na torop neex na torop même kooku noonu papay Aida ji tamit moom moom ndax li mel ni moo yàq rek li ñu suyee lépp am moom waaw nañ ko tëj li woon wax lépp ñu def ko ko pour nit ñi seetaan wala léegi ñi ragal ba duñ defaat lu mel nii.